Déthié Faye ñu ngi lay nuyu yow yaa jiite CDR di convergence pour la démocratie et la république fonk sa kàddu coordonnateur itam pôle non aligné am na nañu mbégte dalal ci matinalu Rewmi FM tey. mbégte bi ñoo ko bekk di leen nuyu di rafetlu itam liggéeyu Rewmi FM. Hmm, ñu ngi lay gërëm alors ci bataaxal bu ngeen génnee alxamis bi ngeen wax ci ne dialogue euh, politique bi président Macky Sall woote euh, farata la waaye farata bu jàmp ngir ñu bokk ci lan moo waral hmm. ngeen am taxawaay boobu. wa xam nga euh, pôle de non aligné moom dafa waxoon depuis le vingt huit juillet deux mille vingt deux euh, bi jafe-jafe yi commencé bari ne bunt bi nga xam rek moom mooy bunt bi nga xam ne moom la ñu mën a jaar ba réew mi nekk ci dal mooy président de la république jël ay jéego ngir woote waxtaan boo xam ne def ñuy may benn li nga xamee ne commission politique bi waxtaane woon na ko ba déggoo ci loolu ñu xool liñ ci doxal ak liñ ci dugal ci euh, loi yi li ci des mu taxaw ci pour ñu dugal ko yeneen tomb yi nga xam ne déggoowuñ ci woon nit ñi waxtaan ci ndax fi ñu jëm ci élection présidentielle am élection boobu am na solo am solo boo xam ne su fekkee ne charte yi ñu ciy demee déggoowuñu ci fitne rek lay indi ci biir réew mi bi nga xamee ne wax nañu loolu ñu mbir mi di continuer di gën a jaxasoo ñu ñëw ba booru mois de janvier ñu defaat beneen réunion waxaat ne président de la république ñun am na loo xam ne jaaxal nañu mooy déggoo yi nga xamoon ne déggoo woon nañ ko am na ci yu bari yoo xam ne ba léegi doxaluñu ko te buñ ko doxaloon ba ni am na jafe-jafe yu bari yoo xam ne am nañu ko fii ci tension politique ci terrain bi jafe-jafe yooyu kon nar ko woon a am ñu waxaat ko ne na jël ay jéego pour que ñu nit ñi mën a waxtaan te point de consensus yooyu ñu doxal ko moo tax bi ñu toogee ba defe naa ci euh, feetu 4 avril bi ci discours bi mu woote waxtaan ñun ñu wax ne kii dafa mel ni def ñoo fekk si ci la nga xam ne moom lañ doon wax boobu ak léegi waaye nag bu fekkee ne loolu mën naa nekk war naa nekk hmm. dafa am ay charte yoo xam ne def ci def ciy ànd bu njëkk bi mooy moom dafa war a woo comité de suivi bi nga xam ne moom la commission politique bi waxoon ne nañ ko taxawal mm-hmm. comité de suivi boobu toog ak moom wala kilifa bu ñu bu booleel comité de suivi bi ñu xool ne ci ji ñaar fukki déggoo ak juróom-ñaar ñu amoon mm-hmm. doxal nañ ci nangam des na nangam nangam jooju ñu ne nañ ko doxal ci saasi ak naka itam naka lañ ko mën a doxale doguma la waaye mm-hmm. ñàkk doxal yooyu moo tax ñu bari jàpp ne jarul dialogue waat ndax lañ dialogue woon 2019 mi ngi fi tege kenn doxalu ko est-ce tey waru leen woon mm-hmm. jublu sax ci fexe ñu doxal loola moo gën dem di dialogue waat pour wax la nga waxoon waaw xam nga mm-hmm. bu fekkee ne woon lu fekkee ne par exemple yow dangaa dem waxtaan ba am lu mot ñaar fukki tomb ak juróom-ñaar yoo xam ne déggoo ngeen ci te tomb yooyu mën a saafara xat-xat ak jafe-jafe yi ci biir réew mi bu fekkee ne am nañ am nañ occasion boo xam ne dañuy toog ak ka nga xam ne moom la président de yebal wala du mu mën a demee nit ñu toog mm-hmm. ba loolu ñu sa woon pour ñu doxal ko ñu doxal ko yaakaar naa ne boo nee demuma da ngay ub bunt yoo xam ne fam lay yóbbu mm-hmm. du dëppoo ak li li gën ci yow mm-hmm. ndax tey xam nga bu ñu bëggee doxal recommandation bi wax ne article vingt et article vingt neuf ak trente nañ ko nañ ko changé ndax xam nga nit ñu condamné ko ne ko nag li des sa giiru dund doo toogote deetuñ la fal xam nga ne loolu jaaduwul hmm. ñu ne kon loola dañ ko war a dindi mais buñ koy dindi duñ mënuñoo bàyyi président de la république mu toog ci biroom wax ne waaw kon koo xam ne euh, tere woon nañ la nga bokk dootuñ la tere nga bok sa giiru dund waaye danañ la tere nga bokk fanweeri at wala dañ la tere nga bokk ñaar fukki at xam nga kon loolu du am njëriñ. Mm-hmm. kon il faut que nit ñi waxtaan ba nga xam ne dañuy wax ne bu fekkee ne loolu am na diir bii rek ngay toog bu diir boobu jeexee nga dugaat ci ci ci liste électorale yi loolu waxtaan moo ko mën a indi. Mm-hmm. te loolu bu amul ñi nga xam ne ñu ngi ñu ngi soow pour que ñoom ñu bokk ñoom du ñu mën a bokk te ñooñu dafa am ñeneen ñu ciy dellu ñu ciy dolleeku. bu ko defee fitna rek lay indi ndax ñooñu ñëpp bu ñu bëggee maasale wax na ñii ñëpp kenn du ci bokk ci élection yi yaakaar naa ne ay xat-xat rek la indi. alors euh, tey dialogue bi euh, président Macky Sall woote jàpp nga ne euh, ku mel ni Ousmane Sonko daf caa war a dem xalifa Sall ak Karim Wade moom xam nañ fi ñu féete waaye usman Sonko fi mu ne moo ne du dem te mu nekk ci situation boobu ndax cour d'appel condamné na ko keroog donte ne définitif agul waaye yeneen mi ngi ci kanamam ñoom ñu ragal ni loolaay jubluwaayu nguur gi fexe ba du bokk kon jàpp nga ni moom daf caa war a bokk ak keneen ku mel ni moom nekk ci situation boobu. xam nga xam nga ku nekkul ci situation boobu. ak ku ci nekk yéen a yem parce ñi il faut que ñu bàyyi di nett àddina di la di ko méngale ak seen njëriñ xam nga li am mooy nun ñoo bokkoon toog waxtaan moom moomu nga tudd am na ku ko fa toogaloon mm. keneen koo tuddul am na ku ko fa toogaloon ñun ñëpp ñoo toogoon waxtaan ba wax ne loi yi nañ ko changé xam nga boo ñuy wax ne loi yi nañ ko changé bañ koy wax. Mm. ku mel moom ak moroomam kenn xalaatul woon de yooyu dana dana leen dana leen laal mm. kenn xalaatu ko woon kon li am solo du du du ngay xool jëmm ji li am solo moom mooy ñu xool problème bi fan la ne ñëpp maase ànd xam ne problème baa ngi nii ku nekk nangoo ñëw toog ñu saafara problème boobu ñi nga xam ne dañoo war a bokk ci élection yi bokk ci élection yi bu bés baa bu ñu wotee ba ngoon ku ne xam ne nangam la am ku ne dem yoonam waaw. alors euh, ci jaloog booba itam euh, ñu bari gis ne euh, yenn saa yi xëy na lu mel ni deal lañ koy jàppee ndax yéen li ngeen waroon xeex du xeexu principe boo xam ne la muy xëy na ëmb mooy fexe ba yoon dootuñu ko mën di manipuler ni ko ñu bari di ñaawloo waaye itam luwaa yeeg règlement yi lu mel ni code électoral ñu natt ko ba fexe am ñoo xam ne danañ leen ca jaaree tere leen ñu bokk ndax du loola la opposition bi wala classe politique bi war a ànd xeex euh, moo gën dem ci dialogue yoo xam ne ñaare njariñ la du bari ndax la ñuy wax bu dee duñ ko def moom njeexital la mm, euh, xaw na euh, des xaw naa doy xam nga tey bu fekkee ne dañoo toog wax ne nañu saafara nangam te loolu ñuy wax ne nañ ko saafara nag ñu ngi ci ŋàññi Sénégal boobu ak lé depuis mille neuf cent quatre vingt sept mille neuf cent quatre vingt sept ak léegi euh, euh, yaakaar naa ne jege na léegi na ñeent fukki at ak ak juróom-benn ak juróom-benn ñeent fukki at ak juróom am ay dispositions yoo xam ne yu ngi ci suñu dispositif électoral ñëpp wax ne lii dafay gàllankoor xëy na boobu gàllankoor yi demee gutoon nii nit ñi xëy na gisuñ ko waaye yàgg nañ ñuy wax ne changé leen ko léegi nag egg si nañu foo xam ne loola buñ ko changé wul mën naa gàllankoor candidat yu bëree bari kon lu lu nit ñi tudde ay ay deal ay déggoog ay accord yooyu yépp lu ci am solo mooy classe politique bi yépp taxaw wax président de la république ne loi yi teguwul fenn yàgg na ñuy wax Sénégal ne nañ ko di 1987 ba léegi occasion am na ndax gis nañu musiba bi nga xam ne mën na koo indi ci réew mi te musiba boobu duñ ko seetaan bu ñu defee loolu ba war ko changé lu ci nekk danañ wax ne lii buñ ko dindee lii moom lañ koy remplacer lii buñ ko dindee lii lañ koy remplacer loolu rek moom la ñu mën a demee ba nga xam ne jàmm ji nga xam ne moom la ñu soxla dinañ ko am sudul loolu bu fekkee ne ku nekk daa toog këram. xam nga loi xam nga code électoral bi moom wax na ne nii la ñuy demee élection mais bu bés bu kon bu ñu eggee deux mille vingt quatre mais no li li wax ne ci code électoral bi la ñuy doxal te bu ñu doxalee li nekk ci code électoral bi bu keroogee réew mi yëngu-yëngu dana fi am yoo xam ne hmm. kenn dootul mën a fexe ba mu dal hmm. loolu nag est-ce que nun suñuy gis-gisu bopp suñu intérêt bopp suñu carrière politique bopp war naa mën a tax ñu bañ a moytul Sénégal loolu moytul ko suñu njaboot moytul ko génération yi ñëw. te loola dialogue rek ko mën a faj. moo ko mën a faj parce que tey boo ne woon président euh, waaw léegi article yooyu changé ko ah. Hmm. toog moom mu tëju ci biroom wax ne waaw waaw wax dëgg yàlla périmètre giiru dundam mu bañ a bokkati ci élection loolu moom nangu naa ne jaaduwul hmm. waaye ku ko fi defati doo toog sa giiru dund waaye da nga toog ñaar fukki at xam nga wàññi na ko. Mm. bu keroogee bu ko wàññee est-ce que boo yow boo toogee ñaar fii at yow da da da nga nekkati mm-hmm. kon mel na ni ba léegi éliminé nañ la. kon ñi dañoo war a toog wax ne dañ koy changer du doonati giiru dund waaye kuñ ci condamné ti nangami at lii rek ngay toog boo toogee rek dugaat mm-hmm. loola toog wax moom moo ko mën a indi te jàpp naa ne. di sàmm sa carrière politique pour képp koo xam ne kii mën na laa xatal nga nga nga nga nga nga nga nga fexe ba buñ ko bëggee toogloo doo ca wax loolu doonut doxalinu politique bu rafet ndax xam nga ñi nga xam ne ñoom ñoo am jafe-jafe pour bokk ci élection yi hmm. dafa am dañ ñoo xam ne dañoo ànd ak ñoom boo nee demuma ñoom ñu ne demuñu kenn ci ñoom demul kenn waxtaanul xam nga yow moom yow moom da nga dem da nga da nga pose sa candidature waaye ñooñu nga àndal ngeen nekk ci benn coalition wala ngeen bokk intercoalition te loi bi tegu seen kaw ñooñu moom li ngay wax ak li ngay def yëpp xam nga ne ñoom moom duñu bokk. Mm-hmm. kon xëy na la ngay seelu mooy ay nitam comme moom comme moom du bokk. ay nit nga fexe ba ñu woteel la. lii nga wax nii de dafay dëggal li président Macky Sall waxoon euh, ne ku dialogué doo bokk. non cest du question ku dialogué doo bokk c'est-à-dire nit mën naa bañ a dialogue te bokk. Hmm. parce que bu fekkee ne dialogue bi am na bu ñu changé loi ku ñëw ku ñëwul aussi du tere nga bokk. Hmm. am de loi ñëpp lay concerné waaw. ñëpp lay concerné parce que loi loi du loo xam ne kenn nit la du loo xam ne pour nit la dafay appliqué wu à tout le monde donc euh, par exemple euh, nit ki mën naa bañ a dem nit ñi toog waxtaan changé loi bi. fekk yow effectivement loi bi neewoon na la neewoon na yow doo bokk te bu ñu changé loi bi rek nga nga nga nga daal di bokk. Hmm. waaye li ma bëgg mooy man waxuma sax ci ñi nga xam ne ñoom la affaire bi daal gis nga ñi ma xa ñi may woo mooy ñi nga xam ne dalu leen. Hmm. te ñi mu daal di seeni xarit ak seeni àndandoo seeni am di jàmm. ñu ñëw porte seen combat. nga ñëw porte seen combat pour ñu bokk. Hmm. d'accord ah, euh, loolu moom mooy li nga xam ne wax dëgg yàlla. moo gën a rafet waaye ànd ak nit ki ngeen di def ñoo di def ay point de presse di def lu ne hmm. ah bu ñu waxee nga dóor ci taabal bi xaste saaga te mu wóor la ne lii moom bu fekkee ne moo continuer waa ji nga dendal moom du bokk la muy mën a def rek ba bu ëllëgee mu ne woteel leen kii hmm. waaw joxe consigne alors noo jàngatee taxawaayu yooyu ñoo rafetul waaw ñàkk sincérité de yàgg na ci politique moom alors noo noo noo jàngatee taxawaayu Ousmane Sonko désobéissance civile bi mu wootee euh, ñàkk dem ci jaloog bi euh, rassemblement wala résistance euh, mu feggoo ci ak F24 loola noo ko jàngatee ci jamono bi nga xamee ni ñoo ngi wootee dialogue ñoom ñooy wootee rassemblement ak résistance ca wet ga waaw xam xam nga xam Sonko dafa nekk tey ci situation boo xam ne Euh, situation bu jafe la te situation bu mel noonu ku ci nekk il faut nga jàngat ak ña nga àndal ban taxawaay mooy taxawaay bi gën dëppo ak li nga xam ne moom moo la mën a may ndam donc jàngat ba ngay am élément yi ngay am yépp pour dajale ko analyser pour jël position ku nekkul ca biir kuréel boobu mënu koo xam kon normalement li nit ñi war a mën a def rek mooy respecter position boobu ndax droit à la résistance droit boo xam ne ku nekk am na mm-hmm. képp koo xam ne jàpp nga ne dañuy dañuy sañ fànn say sañ-sañ am nga sañ-sañu euh, jàkkaarloo ak euh, ka koy def kooku nit ki da da ngay reconnaître nit ki euh, ses droits mm-hmm. ak ay analyse ak ay position li am solo rek mooy li nga xam ne man moom la ñaan mooy compte de euh, tout ce qu'il représente euh, pour le pays que ñu mën a dem ba xel yi dal nit ñi dellu si euh, sago yi dellu si ba euh, véritablement euh, yenn xat-xat yi ak yenn jafe-jafe yi Euh, yàlla génnee ko ci. jërëjëf euh, kon ñu ngi lay gërëm bu baax a baax cee Faye fàttali ni yow yaay euh, njiital parti CDR fonk sa kàddu nekk mhm. itam coordonnateur pôle des non alignés. merci maa ngi lay sant la gërëm. la gërëm. jërëjëf maa